yaram bi ak tegginam yii ak sigal nu nag nun taalibeem yii ne ci biir njàmbur lool ndax fu dem fu nekk bu ne sëriñ Xaadim mooy sunu wasila rek ndax li ñuy mooy kilifa ga fay fekk mooy wax aka yaru aka teey aka dal aka am fula aka dib taalibe loolu nu di ko am noonu di ko jëlee ci sëriñ bi mu defal nu ko ca bu nu dikkee fi moom mbaa mu ñëw fi noonu mbaa mu woote nu wuy si mosunoo wal dara dudul ak taalu bi rek waaye mosunoo wonu bëgg benn yoon. ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla nga yàgg fi ci wér. di xamal ni bég nañ ci lool nañ ci waa section lool lu tax góor a jéy dafa noonu koo bëgg bëgg-bëgg mu bëgg say bëgg-bëgg koo bañ bëgg-bëgg bu ko neexee loo bëgg mu ni bañ naa lool ci doo ko mënal dara noonu nag suñu bëgg lépp mooy Serigne Khadim mi toog yow nga jur ko ba noppi nag bëgg ko ni lu ko bëggee mbaa nu ko raw mu jaral la ngay déplacé wu loolu ci boo toogoon nit mu fekk si la kon jërëjëf Mbacke sunu xol sedd na guy. yàlla ko sunu borom lafal cet balay sa yàlla nga dund yàlla nga jëf ba àggal waaw li sëñ Mbamba di séddale ay sëtam yàlla bu la ci kenn ëppale. ñun de sëñ Mbàkke dafay nekk boole nu ak yow waaye ñun de rëccu nu lu mu doon boole rëccu doon ànd ak yow barki sëñ Tuubaa la nga mucc jërëjëf. kon Mbàkke nii nga mën a mel man de nu ma mel sëñ Mameta altine lañ ma dàq altine lañ ma jëlaat sëñ Mamel rek a tax bi ma jullee timis lañ ma dàq bi ma jullee gee lañ ma jëlaat fu ma dem wax naa te kim ma sëñ sëñ Mamel booleel da koo wulli ba mel niw der lu ma bëgg la bëgg fu ma jëm la jëm fu ma jëmut jëmu fa lu ma wax la wax lu ma dul def du ko def te bokkunu diine ndax chrétien la ma di jullit waaye loolu sëñ Mamel tama ko defal ndax dafa waxan ni rëgalu ma bor dama am koy ku ma sonnal ma fay la kon Mbàkke ñun suñu xol sedd na sunu xel dal na sunu yaakaar tësut sunu sag ngéen dañ leen di sagoo di leen tiitaroo siggal ngeen nu sagal ngeen nu coow li bari na wax ji bari na riir mi bari na waaye fañ leen tegan ba tey yéen a nga fa bu sëñ Mamet del siwaatan tey ci kaw suuf fii mu la fekk doo sa sab toogaay Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla na nga bari xéwal ku la dëkk yàlla na daanu loo dëkk yàlla na nga ko daan jërëjëf Mbàkke ajbartali inakal jabaar doona li xam كل انقضاء بلاسي li اخترت يا bokki jullit yi bokki taalibe yi sangu yu tedd yi ci turu Serigne Khadim Mbacke ibnu Serigne Mouhamed Taif ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jël nuyoo bi ak cant gi ak siyaar gi lépp ci kàddoom di ko tekki loxol way juróom wu tedd wi di Serigne Abdou Salam ibnu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëñ Maodo Fall bi nga yëkkati sa kàddu léegi dama ne la jëf day am seere wala dañuy wax ne kurus akub caq ñaar rek leen wutale mooy seere kon jëf ju baax day am seere bii waa wilaaya bi egsee ñëw ci turu kilifa gu mat kilifa nga xam ne 78 ba léegi mooy ministère des affaires étrangères que Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Fall muy Serigne Abdourahmane yàlla taxawaayam bi yàgg fu ne wujj na fa. ñëwut kenn ci ak taalibe ay kilifaam seeral nañ ko ko kon Mbàkke yàlla na taxawaayam bi yàgg mu yónni nag ñu mat a yónni li bi xat-xat koo xam ni foo ko séenee daa ah, leer na ci soxos wilaay la nekk ci di dox mooy sëñ Ibrahima Modou Mamoun fi lañ ko fekk waaye benn bee ak mboolem délégation bi nu àndal yëpp sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen waaye yéen a bokk waat ndax waajuram woowee day wuutali ko ak sëriñ Mouhamed. te ci ndigalam rek la fa seen wéy kon mi ngi ko ñaanu su mbalam yàggal ko fi loolu te wéral ko nee na nag sëñ Abdou Salam mi nga xam ne moo tewee jotaay bi muy suñu kilifa ñun ñëpp ndax bu fekkoon dañuy julli dañuy doon sàppe rek mu jiitu ñu topp ci ginnaaw kon sëriñ bi nee na ñu ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko waaye sëriñ Abdou Salam sa doom ju baax ji wala fi dañu tubaab bi de la répétition et ñëpp waxoon nañ ko waxoon naa ko dinaa ko waxaat su meloon nu nu gënul fii rek la ñu sukk ci kanamam soxla su am diis ko lu nu am jox ko ndax moom la yaakaar adduna ak alaxira kon ndokk waay ba mu mel ni ñu bëgg man de rusuma wax fenn ni sëriñ Xaadim moom sëñ Mbàkke moom ne mooy sama jëriñ barki borom Taayif te fu ne dem naa fa nag billaahi lazi laa ilaaha illaa amul fenn fu ma rus a toog ni sëñ Xaadim moom sëñ Mbàkke moom ne mooy sama sëriñ ñu ne ma yaakaar baaxu sëriñ tayal la ko te mën a jaamu yàlla kon alhamdulilahi rabbil alamin kon Mbacke sëriñ bi nee na nga ñaanal njaboot Sëriñ Tuubaa gii ak ñi ñëw ak ñi amoon yéene ñëw nga ñaanal ñoom ñëpp lu ñu song daan ko suñu borom dafa leen gudd fan. dafa leen wër dafa leen taalib gën lu nga ak paste gën liggéey du Serigne Touba nee na yow mii la koy gis doo romb di ko ñaani keneen nga ñaani ko mbooloo mi faju aajo gu ànd ak wér ak ci liggéey du Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi jégul de wii di Serigne Abdou salaam Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé ma jëmee ko ci yow seereel ko taalib yi fekk jataay bi sëñ bi nee na xam nga ne bu ngeen masaan teew bu ñu masaan wax rek danaa nan ñaan waaye nee na tey day bisu wax ci moom ndax nee lii nga wax Cheikh Mbacke mu wax ko ko nee na kon war naa delloo kàddu yooyu bañ xam moom li koy indi ci jataay bii. nee na moom sëñ mbakke moo ne ko woon mu ne ko Mbacke mu ne ko xaadim moomee day ab jullit la ab taalibe la am diine la ku am lislaam la te ku amuk taalibe ku ko am ngor la ku nangoo ku nangoo toppe la. nee na sëñ Mbacke moo ko ko waxoon nee na lii taalibe yi wax ci yow sëriñ Cheikh rek lañ ko diis ndax bañ nee sëñ Abdou Salaam sëñ Cheikh tax wax nee na sëñ Cheikh moom nga xam ne moom lañ ko moom liñ ko diis sëñ Cheikh la koy diisaat mu feeñ ci jotaay bi mooy suñ borom guddal sa fan wéeral la muusal la ba li nga yéenee liggéeyal sa wajur yi nga def ko ni nga ko bëggee nee nag dana wax ñii li leen boole ak moom. nee na moom day gannaaw bi ko Serigne Mbacke waxee loolu ba noppi daf ko ne Abdou nag nag ma jàppal xaadim Louga ak Ndande sorewuñu waaye bu buñ sorewoon it doom ji neexee fekk la nag ma ko jàppal nee na nag ma ko jàppal joojee ko Serigne Mbacke soon la waxoon nag nee na ba ba mu koy fekk dalay jàpp